asalaamaaleykum mbokk yi tey la gaawu ñaar fukki fan ñaar ci rabion saani yi muy weeru rakki gàmm di ñeenteelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre ci atum ñaari junni ak ñaar ñeent ñaar fukki fan ñaar bokkul ci lim yi fàtti lim bu rafet la kon tey ci gaaw bi rafet na lii ci gën a taamu mooy ku ca watu li ñu ci tere tere wattandiku moom gaawu mooy ku ca sangu wala ku ca fóot ñaanu bis bi maa ngi sàkku njëggalul yàlla mi aji màgg ji yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu dul moom te mooy aji dund ji tey aji des ji tey tuub dellu ci moom astaghfirullah al azim alladi laa ilaha illa huwa al xayu al qayum wa atubu ilayhi astaghfirullah al azim alladi laa ilaha illa huwa al xayu al qayum wa atubu ilayhi xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul jenn waay juy def bàkkaar daal di jóg laablu julli daal di yàlla lu dul ne yàlla sunu borom da koo jéggal xadis bi at-Tirmidi nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa maa min rajulin yudnibu damba summa yaqumu fa yatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah illa xafara lah rawahu at